à sa sœur. jàmbaar ban la si lépp si mu non non fif abonné ak fix yow. Macky Sall le dictateur. non non non non. fii la. ñun dañu waa gars yi xanaa da ngeen sonn bokk commencé ko leen libérez Sonko libérez Sonko libérez dictateur dictateur dictateur libéré libéré libéré libéré libéré libéré libéré libéré Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky Sall taxawal taxawal taxawal kon moo nekk nii Sonko. Sonko kañ. maa ngi sa ginnaaw yow yaa Macky Sall. dictateur. Macky Sall. dictateur. Macky Sall. assassin. Macky Sall. assassin. Macky Sall. assassin. Macky Sall. dictateur. Macron. Macron complice. waaw. Macron. Sonko. libéré. Sonko. libéré. Sonko. libéré. Sonko. libéré. Sonko. assassin assassin Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko assassin assassin assassin Sonko assassin assassin assassin Sonko Sonko Sonko

Macky président xam nañ ne cinq heures lay yegsi loolu xam nañ ko à cent pour cent adresse bii lañ ñu jox waaye am nañu aussi ay ay nit ñu ñuy xaar Pierre Hôtel ak Maison du Sénégal fu mu mën nekk dinañ fa yegg dans cinq minutes fu mu mën nekk rek bu nekkee fii dinañ ko fa fekk bu nekkee Maison du Sénégal dinañ ko fa fekk incha allahu rabbi jërëjëf Assassin! Assassin! Assassin! Assassin! ok voici ñu ngi fi ak Cheikh Ousmane Dramé ok bu ah, réveil ah, la ziar bu baax a baax waaw. gis nañ protestation ci euh, ñàkk mënut ñàkk kenn ku ci nekk xam na Macky Sall mu nekk Sénégal kenn ku ne xam na ko. américain yi ñoo la a xam li xew Sénégal dafa tolloog nag nit bu amee lu ko naqari muy un citoyen digne dafa war a génn wax ko. te xale yi bokkuñu xale yi 1960 xale yi dañooy yeewu am pouvoir internet bi doon ay intellectuel xam naka la du xale yi du xale boo jàpp rek ne ko may naa le diw diwee sa jëkk yow amoon amatut amatut ba tax na ni mu demee foofu ñu accepté ko Macky Sall amulul jëriñ boppam la fi nekkal ak France boppam ak France. maa ngi tudd Mariétou Fall membre PASTEF New York. dañu ñëw fii pour wan Macky Sall le dictateur que li muy def sénégalais yi di ko teg sunu leader Ousmane Sonko ak xeet ak population sénégalaise en général ku ko neex mu tëj ku ko neex mu rey loolu lañuy ñuy ñaawlu ndax Macky Sall ñun ñoo ko dénkoon sunu réew donnuwu ko te daf ko waroon joxe ci anam bu rafet. léegi lool moo tax ñu ñëw fii nag wan ka ni diaspora de manière générale ak waa New York tey jii dinañ ko wan suñu nakka wan ko suñu déception ndax Macky Sall daf ñu wor ñun ñoo ko faloon ñun ñoo ko faloon mu wor ñu téye Sénégal téye bu ñaaw despotisme euh, favoritisme lu ko neex def waaw lu ñaaw daal la def Sénégal. waaye ñu ngi def pétition ñu ngi bind ay email di ko yónnee ci organisme yu bëri surtout des droits de l'homme parce que li xew Sénégal ci mbirum euh, ak yelleefu doomu aadama ñëpp ñaawlu nañ ko àdduna bi gis nañ ni dañu jël innocent parce que da nga takk bracelet Pastef wala da nga nekk membre de Pastef ñu tëj la ci kaso bi tëj boo xam ne teguñu ko fenn bàyyi la fa ay weer wala ay at mun nañ si lim ñu bëri ku mel ni sama mbokk Fadilou Keita di ñaawlu bu baax liñ ko teg di ñaawlu tam liñ teg Amidia Falla Fleur ak ñeneen lim bi du jeex plus de 1000 ñëpp jëf yëpp xam nañ ko Macky daal ñaaw def rek la def waaw mais duñ ko bàyyi dañ xeex ba am ndam again ñuy wax ñun Ousmane Sonko mooy sunu candidat mooy sunu plan A ba Z amuñu beneen plan li ñuy def comme ça mu am ampleur tege si leen s'il dañuy chante li ñuy chanter il faut mu doon loo xamante ne mbooloo lay doon maanaam ñun ñëpp ñu defandoo ko ensemble ñëpp bokk ko fii voix boobu la ñu soxla soxlawuñu Macky Sall sax gis ñu mais li ñu soxla moom mooy opinion internationale bi nga xam ne ñoom ñooy taxaw fii ñëpp ngi romb ñëpp a ngi ñuy xool te ku ci nekk li ñuy xeex xam nga ko bismillah

Il est temps de nous respecter. Nous disons non, nous disons non, nous disons non à Macky Sall. Il est temps de nous respecter. Nous disons non, nous disons non, nous disons non à Macky Sall. Il est